avec des factures, avec des bons en enlevé avec des bons en douane yu clair et du fort kon problème bi pour mu simple ndax ku ne mi ñu ci interpellé ñun amul dara ki ñu lii avec ces bateaux d'engrais bi ñuy wax plainte bi avocat bi ko réjugé c'est un sénégalais ki mu porte plainte bind na ko ci plainte bi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 ci ku ko importé signé wuñu benn contrat bu ñu lii ak borom bato borom bato xamuñu xamuñu ko fournisseur engrais bi xamuñu xamuñu ko kon ñi fi indi bato bi ay sénégalais lañu porté nañ leen plant ñoom ñoo amoon engagement financier seen diggante ak seen fournisseur respecté nañ ko wala respecté wuñ ko loolu seen diggante la ku liir plainte bi da nga xam ni am na ku ñu porté plainte wuy ji na semaine passée te nañ ko kon loolu lu leer la ñi ñu ciy tudd